procureur bi soxal mbirum Aliou Sané merloo ñu bëri donateur bu Y'en a marre nekk itam membre bu F24 ndax rek dafay sene camp présidentiel bi loolee nag ngir position am ci lu soxal njuuj njaaj yu nguur gi waaye Mamadou Mbodj moom di ñaawlu li ñu duppee ay forme dictature rawatina bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky xam la na ne du bokk ci jongante présidentielle yi lii. Ah, li ñu ñu xaar ba tey euh, barki démb j'ai procuré bi loolu mun ne il faut daal mu tëj mu tëj donc saisir chambre d'accusation ba suba ëllëg lañ la ko chambre d'accusation du juge waat loolu nag mu mel ni singli boo xam ne euh, day wane ne procureur bi ak ministre ministre de la justice ak ministre de l'intérieur ñoom nekkuñu fi dara loolu ne foog koo xam ne li ngay wax dëppoowul ak ñoom li ñu bëgg ku ko def rek ñoom da nga war a bi wala ñu toog coordonnateur bu Y'en a marre nekk itam membre bu f ndax rek dafay sene camp présidentiel bi loolee nag ngir position ci lu soxal njuuj njaaj yu nguur gi waaye Mamadou Mbodj moom di ñaawlu li ñu duppee ay forme dictature rawatina bi nga xamante ne njiitu réew Macky Sall xam lena ne du bokk ci jongante présidentielle yi lii. ñu naan Sénégalais yëpp ñu taxaw temm wan euh, Macky Sall li mu nekkee d'accord ci li ñu xaar ci moom mooy ba mu décidé yi. na jàpp ne jàmm war Sénégal mu dox jàmm def apaisement def li nga xam ne mooy tax jàmm ni ci réew mi. teg ko loxo nag ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru soin bi ñu génn bañ doon utali kër Ousmane Sonko ngir seeti ko Aliou Sané juge instruction bu deuxième cabinet tegi na ko loxo ñaari fan ci weeru juin waaye audience bi ñoo ko xam xamle ëllëg fukki fan ak benn ci weeru sulet bu boobaa nag dinañ xam ndax chambre d'accusation bi dina topp waaw wala déet requête bu parquet bi